ay waay ñii teel nañoo njorti ni waaw waaw ay waay sa jël na tàng ba ah jël na tàng ba gitaar na ko da daan doole doxul jàmm booy bi yëmbal la dëkk naa ko oh Gaye daan na ko jël bu gaaw vite fait prix bipp prix la booy bi da doon di ma romb.